arbitre bi nga wax ak ñoom ñaar li règlement bi nangu ak li mu bañ dox ci diggante yan bu diis ak R5 yan bu diis moo la woon ginnaaw rakk Fils de Balla la de Balla ko indi école de lutte Balla nekk R5 mu ngi noonu ndeysaan écurie Bosco Sow la ne yan bu diis ndeysaan ak R5 jàppante yan bu diis jàpp na bi la bëggoon am na ko lan R5 bañ na yan bu diis R5 yan bu diis R5 r takk na takk na ko takk na ko R5 takk na ko takk bi baax na R5 takk bi baax na yan bu diis rëcc na yan bu diis rëcc na R5 yan bu diis R5 yan bu diis gisuma Fils de Balla fu mu ne ma nga nara ngang R5 bu diis R5 bu diis jàppante nañu ndaysaan yan bu diis da koo ndengeñ jël bopp bi caxabal bañ na R5 bu diis r bañ na ndaanaan la ñaari xale yi dañoo tolloo taay na daanu na r daan na yan bu diis r daan na yan bu diis R5 daan na yoon bu diis oh ndeysaan rakk Fils de Balla ba na ndeysaan xoolal mag ji ndeysaan xoolal mag ji ma nga taxaw ci bunt ba ndeysaan ma ku daanu wéet rakk ji daanu na bañ naa ndaysaan ma ngay jooy ma ngay jooy rakk jaa ngay jooy ndaysaan ay waay xoolal da koo ñeewantal ma ngay wuy téléphone ñaan kat yaay woote oh ah yan bu diis ñàkk waay ay waay yan bu diis waay ndaysaan muñal bi nga fi jugee ndam nga amoon boo defet jaadu ñaari ndabay dugg benn ay génn merci merci. waaw merci. waa nga bëre yan bu diis waaw yan dama bëre moom ci xel mu sell. li olof naan yàlla àndul ak kuy tooñ. moo ma juri ci bi. dama dugg asalaamaaleykum. dakkal ma ay saaga ndey. man dama am yar ak teggin. kot si ne ma bu leen bu faale demal. tapas na ma wax na ma lu ne. ñëpp na ma bu faale yàlla du ànd ak tooñ. champion la ndax man champion la moom champion la. te defaru waat bu amaatee combat bu dul waa jàmm gën. yàlla ko yàlla suturaal may sama troisième combat deux victoires benn défaite waaw bébé guy gi ko daan daan kii ñaaru ndaw moo ma daan moo ma daan waaw. combat yëpp trois combat yëpp géejawaay géejawaay la. da ngay génnaat nañ ma ko jox fils de Balla. fils de morom ma wax dëgg laajal say morom. boo ko jëloowul fils de Balla bu ma jëlul ren déwén du ma jël. lu leer laa la wax xale laa 96 laa judd fils de Balla bu ma jëlul ren déwén du ma jël. waaw loolu cax la nag nañ ci def kot waaw cax la bu ndaw mi ngi si làmb maa ngi si làmb moo ma daanoon maa ngi si làmb waaw